bismillahi mina seytaani rajiim bismillah barkeb borom Tuubaa mbokk yi ñoo leen nuyu leen ziyaara baax a baax a baax a baax bu ngeen gisee lii ak kii suñu ginnaaw ñoo fii ci rudda buun bi nga xamante ni moom lañ soppi tuddee ko Rue Gaïndé ma tey jii di dimanche le 22 ñu am yéene setal liggéey bii nga xamante moo nekkee buun te ñu soppi tur bi tuddee ko Rii Gaynde Fatma jëwri ñaa ngi ci liggéey bi incha allahu taala bu ngeen ñu toppee lépp lu war a xew ci bis bi incha allah dinañ leen ko dëgtal ànd ko ak magi taalibe yi ci sababu Baye Sidi Ndiaye ak Cheikh Ablaye Ndiaye mi nga xamante ne mooy Cheikh Moussa Aïdara moom Baye Dame Fati moom maam Thierno Birahim Dama la ca Daaru kon mbokk bu ngeen ñu toppee incha allahu taala lépp lu war a rot ci bis bi des leen ko leen ko dëgtal incha allahu taala ci kàttanu borom Touba. la ñuy kon mbokk yi ni ñu leen ko waxe woon boobu ba tey ñu ànd ak euh, liggéey bi nga xamante ni sumbal nañ ko borom Touba fii ci tubaa buun te it ñu soppi adresse bi tuddee ko Rue Gaïndé Fatma waaye noonu fi feggoog suñu waajur ji nga xayte ni mooy yaaw gi sàll di jàmbaaru borom Touba waaye am taxawaay bu rëy fii ci tund bii di lii Gaynde Fatma di ko ñaanal fan wu gudd loolu tànd ak wér liggéey bi nag noo ngi ci woo képp koo xamante ni sol nga sa daal te islaam tax laa jóg ngir liggéey bi kër Serigne Touba kër Serigne Touba nag bàyyiwut kenn noo ngi ciy suñuy loxo di ci woo mboolem seen képp ko am sol nga sa daal te laa jóg incha allah taala dinañ ci feggoog ñi nga xamante ni ñoo ŋànk liggéey bi ñu wax dëgg-dëgg ci islaayu liggéey bi ak liñ bëgg ci liggéey bi incha allahu taala taxaw ak sunu waajur wu tedd muy Baye Papa Dia moom lañ fas yéene jox kàddu bi mu wax ci euh, turu kër Serigne Touba gi nga xamante ni moo ci réer Gaynde Fatma gis ngeen image yooyu nga xamante ne gars yi ñoo ngi set setal tali bi lépp ngir liggéeyal borom Tuubaa ngir borom Tuubaa dana Tuubaa li abdil muridin saadixin lahu moom bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati kon gars yi ñoo ngi ci xidma gi fas yéene jaamu yàlla di ñàkk seen di ñukk seen addi di ko jox ngir jëmmi seen Tuubaa Baye Papa Dia ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare maanaam jërë ngeen jëf mhm. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu yëpp mhm. di ziyaare ñëpp di balu àq ñëpp tey baal àq ñëpp nag di ñaan yàlla suñu borom yàlla yàlla boole jéggal jéggal suñu woy suñu way dawle yi nga xam ne ñoo jiitu ah, li ngeen di def nii day wax dëgg yàlla yàgg nañ ko bëgg xanaa dafa fekk ni sëriñ bi moom mooy dogal lu ko neex te it xëy na sëriñ bi ko dogale nii moo ko bëggee nii xëy na waaye bañ ko bëggee yàgg na fu nag jaar nañ fa pour mën a am kër gi waaye nag tey jii la ko yàlla dogal ci ci loxob sëñ Sidi Ndiaye. Mhm. taal bi sëñ Mbàkke di waa daar Xudóos mhm. damay wax ni kër gi buñ ko amee daanaka ci moom la jaare mhm. mu dem ci mairie ba lii am kon nu ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla daal kër gi yàlla na ko ci sëñ faa fay gën gi fay nag fayaale ñu di sant nag xale yëpp nag xale yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina jëwriñ alaaji mii nga xam ni moom bi ñu xam bi mu nekkee bi mu tàbbee ci liggéey beeg léegi yàggul waaye raw na ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo fi kii ndax lii ngeen gis nii. ay waa këram dimanche ba le passé. man ak ay waa këram ñoo fi nekk daanaka ba 6 heures ci ngoon. ba taxawal poto yi wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla moom daal yàlla nañu Serigne Touba fayal boppam daal. Ya ndax sàkkuwuñ ci dara nag lu dul gërëmul Serigne Touba. sàkkuwuñ ci lenn nag lu dul gërëmul Serigne Touba rek lañ ci sàkku. sàkkuwuñ ci leneen. nun lu nu am sëñ Tuubaa la lu nu ñàkk itam dañ koy ñaan sëñ rek. Mhm. kon yàlla nañ ko sëñ Tuubaa defal kër gi daal mi ngi nii. amul amul ma Samba amul ma Demba. Mhm. ni ko niñ koy waxee rek kër diine la. Mhm. sëñ Tuubaa mooy diine. wallaay diine mooy diine lislaam kon kër gi kër diine lislaam la. na ci ñëpp ku bëgg ku ñëpp ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp rek. nañ ci ñëpp jàppale bañ kër gi taxaw loolu rek lañ soxla soxlawuñu leneen. kuñ politiker ci kër gi rek ba mu taxaw dong lañ soxla wa kay bay papa ja mam dir ba ngeen tambalé ligéyu kër gi yan bonne volonté ngeen gis ñu ñëw fas yéene ànd ak yeen ci liggéey bi ñan ngeen ci gisagum waaw manam ba tambalé ligéy bi légui de mhm. wax dëgg yalla damay wax ni mhm. ah, njëkk a tuddu rek muy soxna awa gi sal mhm. jigéen ju man góor la jigéen ju man góor la koo xam ne kii soxlawul dara lu Serigne Touba rek la soxla. Mhm. liggéey Serigne Touba dong dong dong la soxla soxlawul leneen. bu soxla woon leneen ba léegi waxatuñ ko waaye soxlawul lu du liggéey Serigne Touba dafa daan daf daan wax ni ma. Mhm. góor gi ma ne ko Mbàkke mu ne ma. Mhm. bu ma naree ñàkk kër Serigne Touba fii ci buun ma taxut ñibbi Touba. foofu la ko toll woon dafa ne woon bu ñàkkee kër Serigne Touba fii ci buun mu taxu ñibbi Touba foofu la ko toll woon. kon kër gi fa mu ko toll sori na lool. ki ci tegu mooy Sidi Ndiaye. duñ ko faté nak mun ko musa faté ci adina ndax Sidi dama ko japp te jàppantewu mhm. ma ko. fi mako jappé moy soxna si bi nga xamé ni suñu borom jël na wa euh, jëk sëriñam bu baba jobb ko àjjana. Mhm. mu nekk fii. Mhm. Sidi ndjay di def lo xamni kenn yëgu ko moom mii di soxna sax yëgu ko. Sidi ndjay day bay ba guddi ba ñepp nelaw mu yanu ab saako jëp tabal ko ci biir kër te kenn xamuko soxna si xamuko man mi di wax ak moom sësoog moom mom xamumako muy lu lujjanti ba borom boutique ba ko ba mu ko jëm jëlee moo ni a ah, ki ko fi jël ne neexoon bu ma wax turam waaye ginnaaw yéen ay mag ngeen ñëw ngeen fi seen Sidi Ndiaye seen Sidi Ndiaye mii de moo doon def loolu. loolu nag du lu ndaw. Mhm. kon ki yàgg naa def lu baax. Mhm. yàgg naa def lu Sidi yàgg naa def lu baax. macha allah yal na ko Serigne Touba fay. amiin te lim gis nga li muy def nit yu baax lépp nag. addee addee seen seen Mbàkke soxna loolu koy def. Mhm. lépp lu mu def ci lu baax rek addina Sëñ Mbàkke Sono loo koy def. ndeysaan waa Daaru Xudóos la. Mhm. yal na ko waa Daaru Xudóos fay. amiin yaa rabbi yal ko def Masamba sëñ Masamba. yal na la yàlla defal jàmm. amiin yaa ñu ko séq ñëpp nag. ñëpp amiin yaa rawatina nag sama doom jooju sa ginnaaw. ndeysaan ku ma tudd dinaa ko tudd muy Moodu Maamun mii. macha allah yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi ndax jàmbaar la. amiin yaa ndax mi ngi uuf xale yi. amiin mi ngi leen di uuf di leen tàggat. te loolu rek lañ soxla waa sëñ ateex yi duñ leen bàyyi ginnaaw ñoom fu liggéeyu sëñ Tuubaa nekk rek mhm. ñoom amuñu amuñu amuñu waa kër sëñ Fàllu mhm. amuñu waa Daaru Xudóos mhm. amuñu waa fenn amuñu waa dóoru daaru ñoom fu ñu woote liggéey sëñ Tuubaa rek ñu nga fa macha allah kon yàlla na leen yàlla defal jàmm man nag bëgg naa lool ndeysaan alhamdulilah bëgg naa lool ndax li rek moy sama itte man alhamdulilah ci suba rek la fi mujj jaar ci suba duma xey suba ba ngoon te ñewuma tek sama bëtt ci place bi ndax bëgg guma ko bëgg barke sëñ Touba wallahi ndeysaan kon yalla nañ yalla nungul ci barkeb sëñ Touba ba li nga xamni ñu koy saballu sëñ Touba dimbali ñu ba ñu am fi kër Touba koy dagan bi di amin yalwaan yalla nañ ko sëriñ Touba defal ba ñu am fi kër sëñ Touba lool rek lañ bëgg ñu dara nak lu dul am fi kër Touba rek nga xam ne lii dañ naa lii kër sëñ Tuubaa la fii ci buun ñuy xëy di jàkkaarloom di fi ñëw doy na sëkk ak barke yal yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax mm. tuwatkal macha allah jërëjëf Baye Papa Dia dégg ngeen kàddu yi kon mel na ni bu ñu déggee ci kàddoom bonne volontaire yi nga xam ne dëkk nañ fii ci tund Kër Massar ndax réegee ne Fatma dafa dafa sëkk Kër Massar kon ñoo ngi ci woo képp koo xamante ni islam kese tax na laa jóg ñoo ngi la ciy xaar ci liggéey bi ñun nag euh, personnel Kifne TV fas yéene nañu ànd ak yéen liggéey bi fu ngeen ci toll incha allahu taala dinañ ànd ak yéen ci liggéey bi danañ ko yaatal ba ñëpp jot ci ñoo ngi ciy woo ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi bàyyi xel rawatina suñu émission bi Bamba Fépp maa ngi ciy woo mboolem seen ki nga xamante ni yaa ngi ñuy topp Saliou Der Touba Italie ñoo ngi lay woo ci kër Sëñ Touba gii ndax itteewoon nañ lu lu yaatu bashiru Touba Amérique ñong lay wo ci kër seigne Touba gi nga xamanteni ni lu nu lu songu yaangi ci ñong la ci wo wo gu wér inshallah taala kon mbokk yi bu ngeen gëné top lepp lu fi wurut dañ leen ko rotal ci katanu yalla mbaxum seigne Touba. kon mbokk yi noo ngi toog ak sunu waajuru tedd wi ya Awa Gueye Sall ku ko min min ko ci liggéeyal borom Touba jumaay seigne Touba jere Touba mom kër seigne Touba ko ñor ku dem Touba da nga gis ci seigne Touba ji muy borom Touba waye ku ñëw kër sëñ Modou bu Bousso imaamu Touba it nga xaar kanam gi muy jëfal borom Touba kon noo ngi koy ñaanal fan gudd lool te ànd ak wér yaaw gay ana yan kaddu ngay dénk mbokk taalibe yi ak liggéey bii. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbooloo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tool ak sa sant. di am mbégte lool lool lool nag. tey jii sa taxawaay. Mhm. yow ma sàmba mi ngi mel ni sëñ Mamoun moo taxaw fii ci kër sëñ Touba gi. Mhm. ndax yow ku ne xamante ne bii sa lépp sëñ Mamour Bousso la waaye nag démb rek laa tàqale kook sëñ bi te yaa baali Bousso tamit léegi laa jokkoog moom léegi léegi léegi bi ma toogee ci biir barab bi laa jokk mm-hmm. tàggoog moom ñun dañuy man damay sant yàlla rek am mbégte mm-hmm. bi nga xamante ne bi nee neen fii sëñ Touba moom muy këru sëñ Touba mm-hmm. man booba laa sant yàlla man nag maa ngi topp seen ginnaaw yéen samay doom ngeen fu ngeen aw maa nga fa lu ngeen ni nii la fekk si naa leen fa lu ngeen tere bàyyi naa leen mm-hmm. xam naa ne bi kër gi taxawee léegi nag duma denc dara mm-hmm. lu ma am rek maa ngi koy dugal ci biir kër gi ma ay million nag oo mm-hmm. ma ay junni waaye am naa yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Fallou Mbacke sama wasila maa ngi ñaan ñëpp nag ku ne dugal ci sa loxo ci biir liggéey bi Sëñ Touba bi kenn moomu ko Sëñ Touba ka moom waa kër sëñ Touba ñëw leen. Mhm. milliardaires yi sëñ Touba yi ñëw leen. Mhm. ñi nga xamante ni bii seen wërsëg demeewul noonu ñëw leen ak seen ñaq ngeen def ko fii ci kër sañ Touba Boun gi rii Gaynde ma bii nag. Mhm. doole ak xare moo ko fi indi. man Sidi Ndiaye bi muy dox kër gi maa ngi moom ñoo ko ànd. tabla lan doon ñaan ba mu yàgg ma ni ko Sidi mu ne ah ma ni ko nan rayante am rii. Sidi ni ma yaay waxuñu rii tabla rii la wax. rii Gaynde ma fii ci Boun. macha allah. ñu di ko dox. Mhm. fu ñu dem ñu dàq ñu. Mhm. bu ñu demee fii tey ñu ànd ak ñun d'accord ci liggéey bi. Mhm. ñu koy dox di ko dox ba keroog ba nga xam te ne bii chef de village bi nee na sama kër sax. su neen d'accord muy rii Gaynde Fatma. loolu nag daanaka moo ëmb lii lépp nag. far yàlla dogal ñu ñëw ba ci rii bi nag. muy quartier fii quartier bii mi ngi tudd Midinatu Munawar te yaakaar naa ne a Munawar nag suñ ko dee wax muy Seydina Muhammad Rasulullah Serigne Touba ko moom kon bayaal bii bayaalu Serigne Touba la na ci ñëpp ñëw bu kenn ragal bu kenn yox-yoxi mm. taalibe murit du ragal du yox-yoxi ñëw leen ñu liggéey Serigne Touba Xaadimu Rasul jox ko caabi yi maa ngi ñaan ku ko commencé fekke mm. ci commencement bi yàlla nañ dund ba nu àndandoo di jox caabi yi mm. borom Touba Xaadimu Rasul jërë ngeen jëf sant na ñëpp ma samba sant na la ak ñi nga àndal mën a jàllale waaw na lépp jàll na lépp dara darajay seigne Fallou Mbacke jërë ngeen jëf jërëjëf Yaawa gey Sall lépp dana leer nim ko waxee amna solo baag ci loolu fi di madinatu munawwara kon bu fi Kifne TV dikkee di télé yentou ali salam kon wàcc na kon no ngi ñaan borom bi dafa la tawfiix liggéey bi ngeen sumbu sa borom yalla motali ko incha allahu taala dana jàll te incha allahu taala Baye Papa Dia des nañ leen woo ci télé ba ñu def plateau boo xamante ni ci liggéey bi incha allahu taala lañ koy jagleel du yàgg tuuti ci kàttanu yàlla nañ woo fee ca bi ñu waxtaan ci woo ci mboolem seen mbokku taalibe yi ñu toog waxtaanee liggéey bi mooy Kër Sëñ Tuubaa loolu sunu jaayante la ci liggéey bi. incha allahu taala fu mu war a nun jël nañ communication boobu noonu incha allahu taala fas yéene ko fa jàllale ci kàttanu yàlla ak mbaaxum sëriñ bi barke borom Tuubaa Sëriñ waaw kon mbokk yi ni ngeen ko gisee nii ba tey ñoo ngi fii ci kër sëriñ Touba gi taxaw ak mbokk taalibe yëpp ñi nga xamante ni ànd nañ ak liggéey bi waaye nu boolewaat suñuy kàddu lépp Euh, Baye di mii ñu gën ko miin ci liggéeyu Kër Sëñ Tuubaa gi waaye mu fas yéene jottali kàddu ak message bi nga xamante ni bonne volonté yi nga xamante ni jàpp bi ndax na baax ak na gën a baax rek la kon noo ngi bàyyi Baydi kàddu gi Baydi ñan bonne volonté ñi nga xamante ni ñoo ngi jàpp ci liggéey bi ak ñan la ñuy woo ci liggéey bi ndax njott naan dégg naa sama kàddu bàyyi mu ne bàyyi wuñu kenn képp koo xam ne sol nga sa dàll islam tax laa jóg woo nañ la ci liggéey bii ak ku dul islam a jóg sax wane na ci liggéey sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo ne malaka ni dunya wa uxra samadu maa indohu li taaro muhammadu kon noo ngi lay jox kàddu yi auzu billahi mina a rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyoo ñu ñu bokkal liggéey bi yëpp liggéey sëriñ Tuubaa bi yëpp ànd ceeg ñoom tey ñaan yàlla bañ ci di ci des ginnaaw liggéey la nag boo xamante ne du sama liggéey du liggéeyu sëñ Massamba. du mhm. liggéeyu keneen ak keneen liggéeyu sëriñ Turam te yàlla yéex. amiin waaw xanaa nag di di di fàttaliwaat rek di woo bonne volonté yi. Mhm. ak homme yi nga xamante ni ñoo ngi fii tamit ci tund bi yëpp. Mhm. képp ku si di def sa ñaq du mën nga ko defal. faw ma koy waxaat du sëñ ma Massamba moom nga ko defal. di woo commune Kër Massar bi yëpp. di si jiital parce que tamit loo gis rek am na njiit. ñu siy mhm. jiital suñu maire. Mhm. monsieur Adama Sarr. Mhm. di ko ñaanal yàlla tamit yàlla yàggal fanam ba mu eggal yéene bi nga xamante ni moom la am pour commune de maanaam pour maire Kër Massar. di ci wootam ki nga xamante ni mooy sëñ njagaloo di conseiller maire Adama Sarr moom tamit ñu gis dès le début acte bu mu def acte bu noble bu mu def surtout. mu surtout le maire monsieur Adama Sarr. Mhm. ñu ngi leen di woowaat xamal leen nag liggéey bi nag fi ñu toll nii mu ngi soog a tàmbali dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. yamale wuñ ko si ñoom tamit képp koo xamante ne daal am nga yéene wu liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul. Mhm. mu ngi nii song nañ ko. ñu si nag dërëmu ma Samba. xeebuñu si dërëmu ma Demba. di woo ñëpp bépp bon volonté tam boo xamante ni yaa ngi seetaan lii te am yéene jël sa ñaq def ko ci kër Serigne Touba bi. tàmbali nañ ko. waaw wax ji moom si gën a ñor. benn tracteur. Mhm. Mhm. Mhm. ñëwaat rek parce que xel tam day fattu. ndax euh, ku wal mburu di nga tudd dëkk. waaw di woo sëñ Mbacke yu fay moom mi nga xamante ni moo fi représenté Serigne Touba fii Dakar. moom lañ ci waroon a sax jiital. waaw mais xel mooy fattu rek. ak ñi nga xamante ni daal def nañ fi seen ñaq. Mhm. ku ci melni ni Diallo mi nga xamanteni bi ñuy tambali mo fi indi ab ben mhm. mu ñew doon masale fi ba tay ñu tambali a bi mhm. wa wa waaw alaykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jere jërëjëf euh, Baye di ci kaddu yu euh, rafet yi ngi ñaan borom bi may ñu tambali ak agale ku dégg kaddu yi mu wax xamni ne bàyyiwuñu kenn kon no ngi wo mbollem sen askanu keur masar Rey Gaynde faatma ñoo leen di woo ci liggéeyu ko sëñ Touba gii di fàtte ku ne xam na ni Cheikh Mountakha mi fi sëñ Touba dikkam fii ci Ndakaaru Njaay ñoo ngi koy fàttaloo murit yëpp di ñaan borom bi defal ñu tawféex mu dikk ci jàmm fekk ci jàmm delluwaat ci Touba ci jàmm ñoo ngi fëggi fii ci Ndakaaru kon ñoo ngi koy woo ci liggéey kër sëñ Touba gii ndax ku baax la te kuy ci liggéeyal borom tubaa gi la kon na nga koy ñaanal fan wu gudd loolu te ànd ak wér bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn képp koo xamante ni dégg nga suñu kàddu jàppal ni liggéey bi sab liggéey la ñoo ngi la ci woo woogu wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

fàtte boo defoon na suñ ko bàyyi pour mu mën a waaw. waaye seen war rek moom suñ ko defee ba ko joxee. kon li nga xam ne mooy képp kuy bàyyi la képp kuy kuy bàyyi la ñu koy di dox. muy bu bàyyi baal boobu pour mu mën pour mu mën a toll. comme tey jii ñu jeex mbàcc ngay defoon na. ndax moo ko xaree. ñoo ngi taxaw ak jëwriñ Lamine di jëwriñu Miftaw Sahada waaye waajuram di délégué de fii ci tund bii di Guédé Gaïndé dañ koy bàyyi kaddu gi mu dégtal ñu li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg liggéey bi nga xamante ni moom la ñu taxawal bàyyi jëwriñ ñoo ngi lay ziyaare. waaw yàlla yàlla nangu siyaar ah, di santaat Serigne Touba bu baax Xaadimal Moustapha mm-hmm. ah, di ñaan Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te dool ko wér. sàmm ko aar ko ba yéene yu ma am ci liggéeyal Seexu Xadim suñu borom defal ko ci tawfeexu sëñ bi ba ma am ci lu kawe njort te ñu ànd ko ak moom waaw bis bi tey dëgg yàlla bis bu rëy la ci ñun léegi Baye Lamine lii leen gi lii ma gis ngeen di def lii bu njëkkaan mairie moo ko naan def wala état ma gis mboolem seen murid yëpp volontaire daje fii ban jubluwaay ngeen am ci lii. waaw xam nga liggéeyal Cheikhul Khadim moom dafa dàmbee ah, ndax Serigne Touba mën na si na koo liggéey mhm. ci lépp waaye lii ñuy def. Mhm. daanaka euh, as bu weesoo sëñ bi askan bi moo tax ñu di ko def ndax wax nga ko xam nañ ko ci liggéeyal état waaye Sëriñ Tuubaa moom euh, daf ñoo jàngal ci wàllu xitma euh, dëgg-dëgg xitma buñ koy wax mooy def te rek te yàlla rek tax la te ku ne xam ne a diinu nasiixa mm-hmm. ba tax na ginnaaw dañoo yaakaar sëñ Tuubaa mhm. te lépp tënku ci diine mhm. moo tax ñu xam ni euh, euh, lii ñuy def day dool day dolli kii rek ci laa laabirante mooy set setal xàll bi nga xamante ne mhm. dañ koo dippee suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Cheikh Gaynde Fatma te jëmm jooj buñ ko tuddee ah tuddal ñu islam gi yëpp ndax taxawaayam ci yoonu murit waaye taxawaayam ci islam yi jëmm jooju boo ñu bëggoon wax mooy kan ci taxawaayam ci yoonu murit ba tax fuñ ko tuddé ci yoonu murid tudd ko tudd taxawayam moy kan wa jëm joju buñ hmm. ko doon wax duñ fi jóge deug la ndax serigne cheikh hmm. ah nako mag ñu waxé won rek hmm. dafa melon ko xamanteni dafa jitté won sax jamonom kon c'est un homme multidimensionnel machallah ndax liko sabab serigne massamba buñu xolé manam li nga xamanteni tay mi ngi jariñ ci yoonu murid bi di ko jariñ ci yeneen yoon mooy daayira kan moo ko fi indi Serigne Cheikh Gaynde Fatma ngay wax kon tépp kenn képp kenn koo xamante ne yaa ngi jariñu cib daayira rek na la wóor ne liggéey Serigne Cheikh la kon moom ala kulli haal foog mu am ci wàll buñ ko xoolee ci xam gi mu xamoon jamono tey moom gisoon na ni ah yoon bi Eh, xam-xam mënu cee ñàkk. ba tax na xeebu loon benn benn xam-xam xeebu ko woon. ndax yëkkati ne fii ay nit taxawal na ay daara waaye yëkkati fii ay nit ñu dem ci université yi gën a kawe. di fa jànge donte njàngum sax njàngum càmmoñ. waaye teewu tamit. Ah, gis nga ko nii xamoon na ni jamono dana ñëw ah, danañ am jëriñ yoo xamante ne mhm. dañuy mën a ci ñaari wet yëpp muy mooy boo leen cuxee ci wàllu xam-xam ci wetu càmmoñ ñu mhm. tontu la waaye boo leen cuxee ci wàllu ndeyjoor tamit ñu tontu la kon loolu lépp dañ koy dellu ci liggéey Serigne Cheikh Gaynde Fall kon nag tey bu ñu amee tawféex mhm. eh, suñu jëriñ sëñ Sidi ak délégué de quartier yi ak imam yi ak jëwriñ daayira yi lijjanti loolu ba jël xàll bi tuddee ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma kon jaadu na ku fiy jaar mu war mu mu mu mu mu man mandargoo ci lenn loo xamante ni jëm seen Serigne Cheikh lañ koy xoole macha allah kon mbokk yi ki mooy jëriñ Lamine Faty ni ngeen déggee mu waxee ko noonee muy kaddu yu mucc ayib waaye riib yi nga xamante ni ñoo ngi koy taxaw waaye ak pas-pas bi nga xamante ni ñoo ngi koy taxaw fii ci kër Serigne Touba gii ana gan yëg-yëg nga ci amaat ba gannaaw liggéey bi dambee taxaw ñu sof ci liggéey kër Serigne Touba googee waaw dañuy santaat suñu borom bu baax di sant Cheikhul Khadim euh, ndax sëñ Massamba lépp lenn rek loo xamante ne njariñ la rek suñu borom mi ko teg ci loxo ku tedd ki te wax na ci bayit ba na nasafatu naafiu nasfan jazaba fa kullu kullu fan jazaba kon loolu bu amee nañ xam ne njariñ lépp mi ngi ci loxoy sëñ bi kon boog ñun lu ñu war mooy lépp loo xamante ne buñ ko taxawalee fii ci tund bi mu jariñ tund bi jariñ yoon bi ñu fexe taxawal ko fi ndax jël xal xàll tuddee ko Serigne Cheikh muy doon lu màndargawu buñ ko tuddee wéri nit boo xamante ne ah lu safaanu la ñàkkul boo ko tuddee boo tuddee tur wa lu safaanu rek nga cay am waaye boo ko tuddee koo xam ne waa ji baax la ñàkkut tudd nga ngay tudd tur ñu xool ca daraja waa waa ji baax yooyu sippil la cay bàkkaar ah defal defal la ay ngëneel ci biir loolu taalibe yi seen xarañte ak seen bëgg gi ñu bëgg a liggéey sëñ Tuubaa te xam ni mun ñoo ñàkk di bañ a daje ci barab ñu nekkoon nañ xool foo xamante ne buñ fa demee donte dañ koy àbb ñi fi nekkal nguur gi ñu abal ñu ko ñu def fa suñu mbaar xam bu ñu wootee taalibe yëpp di mun di daje foofu ndax loolu nag dafa manqué ci tund bi ay diggante yoo xamante ne bu ñu wootee taalibe yëpp mun faa daje bu ñuy jàng alquran ñu jàng fa alquran bu ñuy jàng xasida ñu jàng fa xasida bu ñuy soññante ñu soññante mm-hmm. waaye loolu bañ ko doxee suñu borom dafa ñu tawféex ndax Serigne Touba boo waaxoo jëm ci moom mun naaw gàttandu la kon noonu rek la demee bañ demee ci monsieur le maire daf ñu ko yombalal ne wax dëgg yàlla ne ma xaw ma lu ñëw ëllëg de waaye de barab boobu jox naa leen ci ndigal mën ngeen def samp ko seen baar mhm. di fa daje lii ngeen may wax ngeen bëgg ngeen ko fa def te la fay loo xamante ne bu dee ak jàppandal na ci mhm. mu fekk ma fi jox bi ñu xam ni loolu la yàlla dogal waaye fi mu ne nii jox nañ leen ndigal mu bind kayit bi jox ñu ñu daal di tàmbali liggéey barab bi alhamdulilah waaw kon jërëjëf bàyyi leen fàtte am nañ mbégte wu yaatu kon mbokk yi bu ngeen toppee incha allah ñu wane naan yeneen xar kanam yoo xamante ni ñoo ngi fii ci liggéey bi incha allahu taala barke borom Tuubaa topp leen nu rek ci kàttanu yàlla. mun ñoo daaneel suñu kaddu. Uh-huh. maanaam te sant nu la. waaye sant la dafay jëm rek mooy sant sit bii nga xamante ne ah murid yaa ngi koy topp. muy liggéey liggéey bu am solo ci diine. waaye di liggéey liggéey bu am solo ci ci waa kër Seexul Xadim kon boog site bi ñu ngi ñaan. Ah, suñu borom def ko télévision boo xamante na daj àdduna yëpp amiin yaa na ko mën na ko amiin kon boog ñu ngi koy ñaan suñu borom dollee barkeel amiin yaa rabbi taxawaay wa fa am ñu ngi ñaan suñu seexu xadim gën la faa dëgëral bu baax ndax ñu ngi koy topp te wax dëgg yàlla ji suñu ci leen loo xamante ne génn na yoon kon jërëjëf ca kaw ci kanam jërëjëf Baye Lamine Faty ñoo ngi taxaw ak jëwriñ Sidi Ndiaye mi ngeen leen dégg dégg ba tey ca kër Sëñ Tuubaa ba fii ci réew Gaynde Fatma kër sëñ Touba gi bu taxawee yàlla ak jëmmam mi nga xamante ni moom mooy Serigne Serigne Ndiaye moom Serigne Mbacke Mohamed waaye liggéey bi bu taxawee bañ am rii gaynde yàlla ci jëmmam la ko jaaree kon Baye Serigne Ndiaye moom Serigne Mbacke Mohamed ñoo lay ziyaare te di la sa taxawaay waaye ban yëg-yëg nga amaat tey jii bi bisu tey jii. waaw asalaamaaleykum ñu ngi lay di ziar bu baax a baax sëñ Massamba. te yëg-yëg bu rëy la am. ndeysaan ndax may fàttali. Mhm. Euh, jour bañ koy euh, inauguré. ndeysaan di ko tuddee seen Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma. ndeysaan keroog euh, wax dëgg yàlla macha allah amul woon Murit amul woon Tijaan. ndeysaan ñëpp a fi teewoon. Mhm. wax dëgg yàlla ci liggéeyu sëñ Amadou Makhtar. mu yeb ci niru si sëñ am euh, sëñ Amadou Makhtar mu yebal euh, ak sëñ Abdou Fatah yàlla yàlla yàlla yokk leeram wax ko sëñ Aliou hmm. sëñ Aliou joxoon ndigal sëñ Omar Mbacke génn farm mu ànd ak sëñ Ismaïla hmm, hmm. sëñ Fallou ak njabootu sëñ Cheikh yëpp ñu ñoo def inauguration bi keroog am woon murid am woon tijaan am woon laayeen xaar ñëpp fi teewoon wax dëgg yàlla mhm. ak notable quartier yeeg imam yi ñëpp ñu teewoon na fi def inauguration bi tey gis nga tey wax dëgg yàlla macha allah Euh, ci ndigalu seen Cheikh Ablaye di ñaan mu yàgg fi lool ci ci sa wér. Euh, daayira yëpp génn nañu wax dëgg yàlla ah taalibe yëpp génn ñu wax dëgg yàlla ñëw euh, di def sa setal bi. di wax nag tur moom dafa wuyu dafa wuyu ba dafa wuyu boromam. parce que ku seetlu woon route de bu njëkk na mel bu njëkk ba. Mm-hmm. Donta. oto mun oto oto munu fee jaar. ah ñu tudd ko rue bu ñu ko tuddee rue Cheikh Cheikh. ci la ko Promoville ak Ageroute. di xëccoo kenn ku ci ne ne moo koy defar. wax dëgg yàlla depuis bi ñu ko tuddee ba léegi ci la ci la ci la rue bi changé. canalisation yi jàll. lépp jàll wax dëgg yàlla. di ñaan autorité yu bees ñu fexe ba lamp yi sécurité bi aussi que la même sos waaye di sant kenn nag. Mhm. muy Moustapha Mbeng di honorable député. Mhm. ba ñu defee délégation dem ci moom. Mhm. daf ne li ngeen def rafetlu naa ko. parce que toogal nañu à conseil municipal. léegi léegi dañoo bëggoon léegi. Euh, suñu euh, rue yu baax yeeg ak arrêt yi. ñu di ko tuddee suñu magu cosaan yi. Euh, ak ñi nga xam ne que ñooy sëriñ su baax ñi. pour ëllëg xale génération bi ñëw di am ay repères. keroog man maa njëkk ñëw def. demande bi. ñu accepté ñu ko. ma ne ko de lebal nga seen Cheikh loo xam ne ah ma ne ko seen Cheikh de euh, am lebal nga ko mën a fay. naka nag incha allah di honorable député. ndeysaan ci barke seen Cheikh Amadou Mbacké ne Palma. macha allah ci ci waxee. Ah, bañ toogee la yàgg. ki dégg na honorable honorable honorable député. ndeysaan keroog ba ñëwee fii ci kii bi. Mm-hmm. kenn la ko doon fàttaliwaat mais. wax dëgg yàlla xaw ma kan waaye rue Cheikh moom. bañ fi amee ci la lépp soppeeku. même moom sax ci la mi ci la. ay mbiram di ñaan nag seen. Kifne TV Kifne TV. gën a jëm ci kanam. amiin yaa balaa déwén muy bu baax a baax. parce que comme niñ li ñu waxal a honorable de Moustapha Mbengue. wallaay ba ba mu yokk bu baax. macha allah yéen tamit yàlla na ngeen yokk ci barke Cheikh Amadou Mbacke farma. saa su ne ngeen dégg Rii Gaynde Fatma suñu émission tey nag ñoo ngi fii ci Rii Gaynde Fatma bi are are sëñ Mbàkke Soxna Lo gi it moo ngi fee waaye it eh, eh, are Gaynde Fatma it moo ngi ne leen kon rii gi méngoo li nga xamante ni mooy bëgg-bëggi borom Tuubaa méngoo naag bëgg-bëggi magi réew bi nga xamante ni ñoo ngi koy jël di ko tuddee ñeneen ñoo xamante ni jëfalul yàlla tarfata ayni kon lii tawféex la ci ñun tawféex la ci tawféex la tawféex la tawféex la ndax boo doxaatee ba ci kanam di nga jël riz Alaaji Abdou da baax nga doxal ba kanam jël riz Baye Niass kon fii li am fii fii rek la amee kon noo ngi ñaan borom bi defal ñu taw tawfiq defal ñu saxaaratu daaray nii incha allah taala ba ngeen ñu toppee lépp rot ci riz gi incha allah taala dina leen ko dégtal ci kàttanu yàlla barke borom Tuubaa بالله ngi taxaw ak Cheikh Abdoulaye Ndiaye moom Cheikh Seydina Sy Aidara moom Baye Dame Faty moom maam Thierno Birahim Dama la ca Daaru nekk fii ji gox bii ji rii Gaynde ma moom it doon taxawaay taxawaay gi nga xam ne moom la sunu jàmbaajo Serigne Saliou Mbacke taxawoon ci ndaw ñi di defar di defaree kon noo ngi koy nuyu di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Cheikh Abdoulaye noo lay nuyu di la ziare. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yi noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam mm-hmm. di leen nuyu nuyu taalibe ak ay mbokki taalibeem mm-hmm. muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mm-hmm. sëñ Massamba ñoo ngi sant bu baax ci dalal gi ñu dalal ci télé bi di sant mboole seen mbokki Touba Boune yëpp taalibe yëpp di nuyu ñu fi daje ñëpp ci liggéey bi kon nag ñoo ngi lay fay nuyu boobu kon mu mel ni Cheikh Ablaye daa mel ni booba tey sa mbokku bi di serigne sidi jai mom serigne mbacke mohammed taxaway bi nga xamanteni wote gi yagul waye pas-pas gi mourid gi wuyu seur tay ci tay ban jangat nga amat ci liggéey bi nga xamanteni wote nañ ko diko ko borom tuba ah sant serigne tuba rek hmm gëna dolle yaakar serigne tuba hmm gëna dolle wolu serigne tuba alhamdullilah ndax mourid bu hmm gox ba mu hmm li sak ci hmm mooy ku ku ne ko jàkk naw sëriñ bi. Mm-hmm. kon nag sëriñ Sidi Ndiaye. Mm-hmm. dañuy jël cant gi di ko teg ci loxoom. ndax xalaat bi mu am. Mm-hmm. ci jël route bi ñu doon woy route de Buuñ. mu tuddee ko euh, sëriñ Cheikh Gaynde Fatma. di kenn ci lampi sëriñ Tuubaa di kenn ci janti sëriñ Tuubaa yi. loola mooy taaral dëgg mooy rafetal dëgg mhm. ndax sëñ Tuubaa kat ñëpp xamoon nañ ne ay barabam lépp a la ci yàlla mhm. kon bu jëlaatee barab bi delloo ko ci yàlla mooy mhm. delloo ko ci sëriñ Seex kon loola noo koy sant loolu nag ndamal murit yëpp la murit bu fi teew loolu sa ndam la loolu ak cant la ci yow kon nag gis-gis ma ci am mooy murit yi woo nañ leen ci yàlla wuy si nañu ndax استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم كون بني سن سيدي ووي سي ليغيل يالا سي دفر برب بي غير يالا كون لولا نون داني ساور لول سي نيو ويسيكو الحمد لله ويسيكو نك داخ ليغيل سيرن توا موي ليغيل سوب الحمد لله لا ليغيل سيرن توا موي داخ بني بني بالي طالبي lepp luy jame ñu dindi lepp lu wara yaq auto ñu dindi te nawet baangi ni di ñew canalisation yi buñu ko bayé non mëna boucher kon dindi gi ñu koy dind di ko sakkarñe mhm. loolu njariñ la ci askan wi njariñ la ci buun mhm. njariñ la ci état mi defar tali bi mhm. te bu yàqoo moom lañ ci xaaraat kon bu fekkee entretien am na ci rek kon ñu ñu ñu ngi participer ci développement dëkk bi. kon Serigne Sidi day mel ni daa jël benn xeer. jam ci ñaari picc. kon nag loolu mooy gis-gis bi ñu ci am. di sant tey gërëm ñëpp. alhamdulilah alhamdulilah allah. waaye mu mel nii euh, Cheikh Ablaye am na leneen loo xam ne dolloo ci liggéey bi. Eh, fi ci tundu buun muy keur Serigne Touba bi nga xamantani amana amaana booba tey it Baye Sidi Ndiaye ko koog mbokk yi yewi cheikh bi nga taxaw ci taxaway gu am solo gis nañ liggey bi fim tollu ak ban jangat tamit ak ban taxaway tamit lañ wara am ci tundu bi di buun ci rawati na ci wara bay jine xamni borom Touba duggal na ci loxom waye keur Serigne Touba gogit beggon nañ ci nga indi ci ay taxaw jeureu Massamba. Mm-hmm. xam nga kër sëñ Touba. Mhm. dafa dafa mënta ñàkk ci. Mhm. dëkk boo xam ne. Mhm. Euh, dëkk bi ci ndigalu sëñ Touba lay doxee. te ñun suñu yéene mooy fu ñu dëkk. fu ñu dëkk. sëñ Touba moom ko. am murit fu muy yow war sëñ Touba ko war a moom. ndem murit yi dem ba Espagne ak Europe ak États-Unis fexe nañ ba ñoom fi ñuy yewwoo ñu jëbbal ko sëñ Tuubaa ndax foo ci dem am na kër sëñ Tuubaa na ñun ñu dëkk ci dëkk bii nga xam ne nag mhm. fi ñuy yewwoo dañoo war a jël liggéey bi jël tool yi jëbbal ko sëriñ bi ana nu koy jébbale mooy seen bi dëkk ak ñun mhm. mooy kër sëñ Tuubaa googa mhm. su boobaa murid yëpp di jëlee fenn ndigal di di déglu fenn ndigal ndigal li di jóge ci kër sëñ Tuubaa gi di dem ci mboole seen daayira yi fi nekk moy waxta si mo bi hablillahi jamal wala tafarraqu nañu and don bo japp ci buumug yalla gi mm-hmm. sunu borom nak da digle and mm-hmm. téré tàqali ko mm-hmm. kon mouride buñu andé moy suñu sunu victoire waye tàqali ko mooy defete jullit ñi kon nak dañu and don ben am ben kilifa di deglu genn ndigal moy keur seigne touba gi buñu ko defee Sëriñ Muntaxa tan jeuwriñ ji tegal ñuko fi lépp luy jóge Touba di jaar ci moom di ñëw ci ñun dañuy gën a yombal suñu liggéey alhamdulilah kon noonu yoonu murid noonu rek lay doxee kon loolu buun jot na moom it mhm. moom kër sëñ Touba mhm. ndax jëwriñ ñi fi nekk jàmbaar lañu yàgg nañ ci tool bi mhm. di liggéeyal sëriñ bi ba tey jii kat ñu xalaat def fi kër sëriñ bi mag ñëpp jóg ànd ci kon nag nii ñu taxawee ci set setal bi noonu rek laay soññee noonu rek la exemple baa ngi nii lu ñuy def Mm-hmm. nañ ko waxtaanee ñun ñëpp. Mm-hmm. ànd ñun ñëpp bokkandoo ko. Mm-hmm. def ci suñu doole. macha allah murit du songu dara muy sooxe am murit. murit du song dara muy sooxe amul munul nekk. waaw kon nag kër sëñ Tuubaa say sëriñ bee koy defal boppam. ñun buñ jógee. sëriñ bi fekkuñ si. waaye buñ toogee suñu kër sëriñ bi di xaar ñu jóg rek. waaw kon nañ jóg rek. buñ jógee sëñ Tuubaa fekkuñ ci liggéey bi. waaw ndax du suñuy doole de doole sëriñ bi la. doole jàmbur nag. ku koy xeexee mhm. foofa yem rek foofa nga yemale sa bopp alhamdulilah waaw ah, fu ñu yem ci doole sëñ bi rek ñun foofu la yemale suñu bopp kon nag nu murid yëpp jóg jaju mhm. takkaat laxasaay ci ndigg yi mhm. nekkaat ci tool yi liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi fekkuñu ci liggéey bi waaw ah, may ñu kattan guñ ko liggéeyalee kon nag noo ngi sant sëñ Sidi bu baax waaw ah, noo ngi lay sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jëf mbokk yi ni ngeen déggee kàddu yi fii ci rii Gaynde Fatma waaye nu mu feggoog daare Serigne Mbacke soxnaloo te nu def benn taxaw seetlu fa tableau Gaynde Fatma gi nekk bañ ko fay samp kër googa yëg na ni am na lu doon lekkuwaat ca kër ga ba toj nañ ko yeesal ko ba ma ngay jëmaat ca kaw fuñ nekk yemut fu ñu nekkul fii ñu taxawaat di ri di are Gaynde Fatma fii ba mu fi nekk it ku ne xam ne ni na meloon waaye su borom dogal ne kër gi it yeesal nañ ko tojaat nañ ko ma ngay jëm ca kaw kon mel na ni mbir mborom tubaab teyam ju nekk day gàcceel démbam Cheikh yàgg nañ ko dégg say kaddu te yàgg nañoo dégg it la borom Tuubaa da wax muy defare te saasu na ci loolee nga nekk kon noo lay ñaanal fan wu gudd loolu te ànd ak wéram mboolem seen jëwri ñi nga xam ne ñoo fii féete fii ci tund bii amel nañ la cant amel nañ la njukkal Baye jëwri Lamine Faati seen nañ ko ci jotaay bi moom it wax na lu am solo ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal euh, Serigne tubaa fii ci gox bi sama jëwriñ tamit. yaakaar ku sëñ Mbàkke soxna sëñ Mbàkke Mohamed moom it kazaka taxawaayam ci liggéey bi rafet na kon noo ngi dool di woowaat murit borom Tuubaa yëpp ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ci fii ci rii Gaynde Fatma rawatina kër Serigne Touba gi nga xamante ni amuñu lu borom Touba te borom Touba kon mbokk yi ñoo ngi leen di woowaat ci liggéey boobu nga xamante ni sumb nañ ko lépp lu war rot ci liggéey bi incha allahu taala dinañ ko dégtal suñu seen biir Kifne TV ñaan borom bi defoo ñu tawfeex barke Serigne Saliou Mbacke borom njërul amiin noo ngi feggoog sunu waajur wu tedd wi Baye Abdou sàll ñoo ngi feggoog moom ci biir jotaay bi barab bi ngeen di seen sunu ginnaaw moom mi su moom dogal mooy borom daara ji ñoo koy ñaana fan wu gudd loolu te ànd ak wér bàyyi ban yëg-yëg nga am ba nu sampee lii sa buntu kër waaye rii bi ñu tuddee ko rii gaynde Fatma ban yëg-yëg nga ci am asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar mm-hmm. man Abdou Sall taalu Cheikh Moussa Al Karim mm-hmm. waaw ndax Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Cheikh mm-hmm. Serigne Cheikh Cheikh Nour Moussa Cheikh Nour Xaadimu Rasuul waaw bi loolu passé noo ngi sant bu baax nag ah te yëg ci eh, jitaay lii nga xam ne moom ngeen commencé ak yokkute dong lañ ci am. ak mbég. alhamdulilah ndax barab eh, sëñ Cheikh Gaynde Fatma arrêt boobu. Mhm. ba mu jógee sëñ Mbacke Soxna lañ ci teg. sax sëñ Mbacke Soxna sa buntu kër lañ ko def. Mhm. buntu kër bi samay xale ñoo fi ne samay taalibe. ndeysaan ak yokkute nag lan fi am. alhamdulilah. Ah, ba fi mu ne nii ñoo ngi yeesalaat kër gi. kon loolu yokkute dong lañ ci gis. Mhm. di ñaanal itam bi yi nga xam yéen a ko yéen a ci nekk mhm. taxawaay bi rafet na mhm. pastif bi rafet na ah duñ leen ñaanal na ngeen gudd fan lool nag borom koor bi boo ko ñaan da nga ko ne yàlla na gudd fan bu guddee fan rek lu mu jëm dina ko man taxawaay bi rafet na lépp rafet na noo ngi leen di ñaan bu baax a baax kontaan nu baax a baax jaageen jëf yàlla na yàlla yoreel cër yi guddal fan yi waaw jërë ngeen jëf jërëjëf kon yéen a dégg sunu ci kàddu yu am solo yi mbokk mi bu amee kàddu yum ci kii nga daal di koy kii bisimilah. waaw de suñu ma sàmba. Eh, am loolu naan. fekke muccul daal. non la demee. dëgg la rawatina fi mu féere si mu Serigne Mbacke Mouhamed Taïf. ndeysaan waaye li wér ngi nuyu waa chaîne bi yëpp. Mm-hmm. di ñaanal suñu borom subhaanahu dafa leen tawfeex. ba li ngeen yéenee liggéeyal islam suñu borom jàppale leen ci. ñu lay ñaanal nga am ci ndam nag. ñëpp xam nañ sa yitte si xasida ak sa mbaax ñun xam na loolu kon ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ñu topp chaîne bi ku ci abonné ku nekk yàlla dafa la tawfeex ak sa yokkute di siyaare suñu baay bi nga xam ne dana bokk ak moom sëriñ bi comme ni nga ko waxee mu mel ni sëriñ Cheikh Mbacke moom euh, yàlla def ñu tuddee ko rii gaynde Fatma bii mu gën a jamono jaaram en 1912 ci diggante Cheikh Moustapha ak waajur mu baaxul ba suñu boroom def mu jàng ji ba ñëw waaye lépp rek defere ak xam-xam ak bëgg réewam moom Serigne Cheikh ba lépp loo xam ne tey dañuy wax ni rii gaynde Fatma suñ ko wax si Dakar dañ naan fii la njëkk a am fii la njëkk a am ñu amut waaye fii la njëkk a am kon gis na ni bi ñu ko defee léegi ba léegi rëcciwuñ ko da wax naa ne keroog bi ñu koy def 2017 euh, fekk na fi fi jaar oto bu fi jaar ndox mi day taa am na supe yoo xam ne fi nangoo jaar waaye dañoo dem ba mujj gi bi ñu ko def bi ñu ñëwee ba tuddee ko rii bi même pas 3 mois projet bi wacc fi ñu def tak barki dem ma koy wax rek ci ben ben média di len wax ni nan yok sécurité bi rigéey na faat nan ta lampe yi sa taxaway bi ci talib yëpp am tamit état bi jappalé ñu ci parce que lool tam lu am solo la ñu ñew defat fi arrêt seigne bakay mohammed tay nga xamni tamit ni mom 1934 la gëna jamono Cheikh mustapha lañ ko duppé ak Xaadim Rasul kon ñaari tour la am seigne Cheikh di wajuram sa kon nek na ko xamanteni mom tamit ñepp xam nañ ko ci ak mbax ci ak laabir waaye ci baatin kon dafa mel ni li góor gi wax léegi rek ñaari kër yi ñu ko samp yëpp gis nañ yokkute ñii fi taxaw tamit yàlla nañ yokk balaa déwén ñi nekk ci liggéey bi yàlla nañ yokk balaa déwén ci barke borom tayif kàddu yi mën naa bañ mën naa bañ a kii ndax bu ñu ko ci toppee day xaw a yéem incha allah jërëgeen jëf jërëjëf euh, kon mbokk yi ba tey bu nga ñu toppee rek incha allah taala ñu gën a euh, yeggale liggéey bi ci kàttanu yàlla barke borom Tuubaa